niki li nga xam que moo di lën ni yi nga xam ne yi ki woon émission grande gueule euh, de ce euh, vendredi passé japp ni euh, gal yi nak dañ leen di tëmbal di len baye ñuy jall ci ben corruption bi nga xam tam mi xew suñu ay wax euh, si police nationale bu daal accusé moom ki n'a xam ne que moo di Kader nag ginnaaw ba nga daal amna aussi euh, aussi moom tamit euh, retour de parquet si kanamu li n'a xam ne que moo di procureur exactement peut-être tey balaa ñoo tëdd du ñàkk dina am lu leer si kaam une bonne fois pour toutes naka na daal di li n'a xam ne que moo di kaawu Kader ak entre temps évolution bi nga xam ne am na si ba mu wuyu ci convocation ba tey di nu mu ko defee rey si kanamu procureur.

ku nekk aussi yaa motivation. Moi, mm. j'accepte la différence moi n'ai pas ce problème. Mm. bien que parfois les positions am ci d'ailleurs même suñu bokkee plateau on n'a jamais pratiquement les mêmes positions. Euh, je lui reconnais que nit sommes baax la aussi. Mm. ça je je lui reconnais. voilà maintenant sur ces prises de position il y une une responsabilité. Je ci en train de parce que nous sommes des gens qui nit sont pas jam paaka ne nar pas jam parce que par rapport à la prise de position j'étais pas d'accord parce que pour man nit kenn warul attenter à sa à sa à sa à sa vie voilà pour des raisons parce que jour où je Massar après man ça dama ko woo ne ko il faut nga prudent mais aussi de porter plainte ci parce que nit wax ay position warul hmm. tax euh, ñu koy nous koy ñu hmm. par contre quand j'ai entendu les Kader wax hmm. j'ai tiqué j'ai tiqué dans la mesure où euh, les c'est extrêmement grave su fekkee ni amna. parce que moment bi euh, ay jeunes di faatu ci ci géej gi jour boobu bi ma gisee image bi seetaanu ko barke alxuraan. Hmm. billaahi lazi bi ma wonee vidéo gaal gi booy nekk ci biir gaal gi si mënuma ko seetaan wallaahi mënuma ko seetaan j'étais peiné journée nelaw ma guddi googu parce que ay jeunes sénégalais la ñu demoon wuti leneen amuñu yaakaar ñu génn. après ñu faatu ci biir gaal de ba vous imaginez le choc que ça doit réveiller hein, ci sénégalais pourquoi quoi nous ñun dafa nous sommes un peuple boo xam une indifférence quoi ñun dara safuñu quoi nous rek nous na tax ñun ñu poser wu question am na koy pour des politique donc quand Kader a tenu ses propos ce qu'il a dit textuellement il dit gaal je ne suis am ñu posé na leen loolu débat mën na nekk parce que hypothèse la dafa laajte est-ce que nangam mais dafa am loo xam ne interrogation yi loo xam affirmation il hmm. dit que man jot naa ab audio hmm. ay message audio yu ma jot ñu ne ma ñoom bi ñuy dem ci gaal gi dañu daje ay alkaat alkaati yi li leen war a la tey leen ba duñu jaar ci géej gi hmm. ñooñu laaj leen xaalis c'est la corruption ñu ne ñu ñu ne leen ni policiers yi sont dit dajal joxoon les hmm. ñaar Ils ci kon. il faut hmm. ñu Kader bu ñu on Kader. ne ni preuve bu joxee preuve ñu dem c'est dangereux. Nous avons ni dañ pour ñu contrôler le di guerre. loolu première hypothèse. bu hmm. fekkee moom waxul indi wul preuve que sont mu du mais yoon day def grand. je suis désolé. C'est une question de responsabilité aussi. On ne peut pas se permettre d'être devant le micro et de dire tout ce qu'on a envie de dire ou de dire n'importe quoi aussi. Je suis désolé. Billahi si je Est-ce que bah, je sais pas man audio man audio man audio. comme audio téléphone téléphone man man gérer ay mbiru mais comme jot na xibaar bu ne ko ger am na ci géej gi c'est extrêmement grave saa jàmbaar ça veut dire que kon ci faatu yi fi am ñëpp ger bi mooy responsabilité bi waaw bu dee li mu wax am na nañ dem ñu enquête ñooñu bu fekkoon li mu wax am na kon heure bi ñu ngi dem di wëri ñooñu kon buñ ko téyee ça veut dire la mu wax amul parce que dañ ko toppee diffusion de fausses nouvelles ça veut dire que génnee nga xibaar boo xam ne du dëgg. loolu lañ ko toppee de. alors euh, mi ngi noonu exactement ah, maa ngi koy ñaanal yàlla may ko jàmm. xam naa ni hmm. diggante jullit ak moroomam. diggante hmm. nawle ak nawle. Hmm. Euh, je je lui souhaite pas et wallaahi su ma sañoon une minute du du du du ko toog voilà. alors nous ngi exactement ki nga xam euh, Kader Dia euh, n'est pas sorti de l'auberge euh, ginnaaw ba nga ko daan defeeree naka démb foofu si sécurité pour division de fausses nouvelles le chroniqueur de la Sen TV amaan aussi benn ko retour de parquet tey jii si bés bi Kader Dia dina daal di jàkkaarloog ak li le procureur bi et que procureur bëgg na daal ouverture benn ko information judiciaire jëmale si moom à le chroniqueur de du groupe des médias. Euh, le juge d'instruction bon, vous savez daal exactement sur son dossier et que mis un pas euh, justement de la prison donc du koy daal le ñaanal jàmm euh, suñu borom daal di koy lu nu mel alors les itam daal di à du daal di jëmale saaluk actualité ba tey la réew mi si nu yato chapitre élection législative alors xam dernier ni dañ si dañuy dañuy dellu mais bii pas donc analyser politiquement coalition sam